آه. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من القبث والخبائث تنكو نيارل بي سي سوني بندو تاي بي موي ما يكره ليغا خامل دنجكو سيب àggul ci xaraam waaye luñ war a bàyyi la luñ war a bàyyi la ndax bàyyi gi am na tuyaaba wa hiya arbaatun yooyu ñeent la am na ñeent yoo xam ne yépp kuy faj aajo na ko wattandiku donte nag àggul ci xaraam waaye na ko wattandiku bi ci jëkk mooy alkalaamu fi asnaai qadaiha alkalaamu di wax fi asnaai qadaiha ci jamono yi muy faj aajoom ma nga ca biir war wa daal toog di faj aajoom fa mu nekk nit nekk ci bitti muy wax ak moom wala mu yorub téléphone am nit ña di wax muy wax di tontu loolu ci boppam sib nañ ko ki nekk ci biir wa nag daa war a téye làmmiñam ba ba muy ñu ne li tax fit faj googu li tax mu feddaliku mooy jullit bi néew na mu wax wax ju yàgg te tudd yàlla nekku ca man ngaa wax ba daane ba ngay wax insha allah wala yu mel noonu doo ko tey sax wala subhanallah jek jek nit mën na wax loolu yaangi ci telephone ba yaangi ci bir douce bi di fajj aajo di waxante mën nga jek bam nga tuddu yalla doko tay kon loolu motax julit bi ñu téré ko parce que zari ala lo xamne mën na ba yobbe ko ci mu tuddu yalla ci bo xamne wari bi al bawl fi mahab ar rih di di saw ci béréb bo xamne ne dafa and ak ngelaw lu bari ngelaw lu bari lu tax mooy ngelaw li bu ñëwee mën naa wëlbati ndox mi mu wëlbati ko ci kaw tànki nit ki wala ci kaw yéereem tuur ko ci kawam su ko defee mu daal di sobewu ñu ne kon sib nañ foo xam ne ngelaw la daf faa bari mu ñëw taxaw fa noonu wala mu toog di fa di tuur ndox ndax mën naa tax mu taq ca te dañoo bañ mu taq ca su ca taqee sobe da koy taq mu dugal boppam ci ñaari problème muy ñaari sobe day daal di ñëw ci moom daje ci moom muy tahaaratul xadas ak tahaaratul maanaam al xadas wal xabas ñaar yooyu dañuy daje ci kawam mooy war naa dem jàppi waaye war naa demit dindi ci sobe si taq ci yaramam mu doon ñaari coono yu daje ci moom benn yoon te loolu mënoon na ko fegal boppam mooy buy tuur ndox mu dem ci béréb boo xam ne fu làqu la foo xam ne ngelaw luy jëri loolu nekku fa <coughs> ñetteel bi mooy bi ma doon junj léegi istisxaabu ma fihi zikrullah istisxaab mooy ànd ak maa loo xam ne fiihi nekk na ca moom zikrullahi tudd yàlla mu ànd ak yóbbaale ca biir lenn loo xam ne tur yàlla daf caa nekk kooku dañ koy tere satala gam yor di ko yóbbaale ca wana wa bu fekkoon ne tur yàlla da caa nekk sañu koo dugal ci wanak jaaro bi mu takk bu fekkoon ne tur yàlla da caa nekk sooñu ko yóbbaale ci biir su fekkoon ne daa sol mbubb wala dara wala yu mel noonu tur yàlla nekk ca sañu ko dugal ci biir ci biir wanam kon lépp loo xam ne tur yàlla maga ca kenn sooñu koo dugal ci biir ab duus kon loolu ñu xam ne kooku dañ koo sib donte da ko boole ci yi nga xam ne yu ñu sib la waaye li lenn ci borom xam-xam yi nee nañ bu ko tayee kooku day xaraam su fekkee ne moo ko tey mu wóor ko ne lii tur yàlla la mu wóor ko ne lii itam ab duus la mu tey ko dugal ko ci biir bu boobaa day xaraam ci kon kooku ci yi gën wattandiku ci la bokk ñeenteel ba alistinjaau bil listin alistinjaau mooy muy raxasu bil ci loxob ndey jooram bi muy setal boppam bi mu fajee aajo ba noppi baaxul ñaaw na sib nañu muy jëfandikoo loxo ndey jooram ngir di seetal boppam kon loxob càmmooñ la jëfandikoo ci lu mel noonu ndax euh, noonu la a digle ne loxob ndeyjoor nañ ko jagleel yi gën a sell te gën a laab loxob càmmooñ ñu jagleel ko yi nga xam ne yooyu mooy safaanam kon sañuta ñëw ba ca wana wa faj aajoom ba noppi di raxasu di siiw mu jël loxo ndeyjooram di ko raxase boppam kooku ci ci ci la bokk غفرانك غفرانك غفرانك da ngay génn si biti ba pare dooru هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى